assalamu asalaamaaleykum mbokk internet yi amati mbégte jàkkaarloog yeen ci sen émission le regard de Momar Diong di len sante di len gërëm ci top bi ak bàyyi xel bi mbokk yi xam ngeen ni ku dégg ñangal rek xel yépp day dem ci président Macky Sall waaye nag ci fan yi ñu génn président Macky Sall ku yabu ni dàqantal boobu ñu ko def wuyu na ko wuyu na turam ndax gis nañ ni président mer na lool mer na itam ñi nga xam ni ñoo fare ci moom li koy firndeel mooy kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko bu yàggul ci conseil des ministres bu amoon Fatick dañuy ànd déglu lan le président de la république Macky Sall waxoon te mu firndeel mer gi mu mer bu ñu ñu soog a dellu si continuer waxtaan bi mbokk yi ñu ànd déglu ko au courant kuy est moo fi amone léegi lan mo am ci courant gis nga tali ay kambalo won ay marigo nga don gis ci tali yi léegi tu as partout des routes des autoroutes tu as tout cela tu as un train tu as et cetera et les universités et on n'est même pas capable d'aller défendre ça on laisse des gens qui n'ont aucune capacité aucune qualité qui ne comprennent rien du tout di wax ba bëgg ñu wër comme ça ci réew mi lolou loolu nag moom ci ñàkk fayda la bok parce que nit da ngay am fulla sa bop am fayda sa bop waxtan ak masla ku ne xam ma nitu jàmm la mais nak amna lo loo xam ne ko nangul doomu aadama du ma ko nangul kenn kenn kenn faut accepter qu'on nous marche sur les pieds comme ça qu'on veuille ce pays-là le mettre sens dessus sens dessous au nom de quoi au nom de quoi on le ferait et on l'accepterait ceux qui pensent d'ailleurs et je les mets en garde qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qui n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, ce sera vous. Mais moi,

conseil des ministres, le président a pris une am solo. Il y a des gens qui ont été coupés, qui limal. été 2024, 2026, manam digënté ñetti at mu natal kédugu 600 milliards daldi dal kafrine natal 700 milliards dem Kaolack fa la raay wi téene nattal leen junniy milliards dal di ko jeexale Fatick nattal leen huit cent cinquante loolu yëpp nag boo ko boolee day nekk ñetti junni milliards ak téeméer ak fanweer yu teg ñett muy alal gu takkoo takku takku muy ay ndogal itam yu am solo. xamuñu nag ndax dinañ ko jëfee wala duñ ko jëfee waaye li am ba des mooy lañu ñu mujj tëye ca conseil des ministres décentralisé yooyu nekkul dogal yu am solo yooyu njiitu réew mi jël lañ ca tëye kay mooy njiitu réew mi dal na ci Ahmed xalifa Niass njiitu réew mi yàq nañ lu mel ni xeme Pierre Goudiaby Atepa ba di ko traité escroc njiitu réew mi. xas na ay ñoñam ni li muy liggéey amul dara luñ ci feeñal njiitu réew mi tëkku na opposition lii la ñu mujj téye ci conseil des ministres décentralisé yooyu nga xam ne am na ci ñeent dëkk yooyu ni mu demee nag ci conseil de des de décentralisé yi noonu la demee ci bilaawam bi mu ni kenn du ko siiwal te dara waralu ko ludul dafa am lu ñëw

du élu Benno Bokk Yaakaar bu mu mënti doon boo xam ni dinga nga yëkkati sa kàddu wax ko yeggal te tuddoo Ousmane Sonko demoon nañ sax ba nga xam ni wax ci Ousmane Sonko ŋàññi doxalinam dal ci kawam xas ko yàqte ko ci bëtu sénégalais yi doonoon na loo xam ne daanaka critère de nomination la woon maa de promotion te li koy firndeel mooy gis leen fi ñu bëri ñoo xam ni ginnaaw yàlla ak ci dogalu président de la République dal bu ñu doon dal ci Ousmane fonko moo tax ñu am yokkute yi ñu am ci gouvernement bi maa ay nombo yu ñu leen tappal yu bees mën nañ ci lim rek ñenn Abdou Mbow fi ñu toll nii tembe moom mooy premier vice président assemblée maanaam ki ñu taftal ci président assemblée nationale. yokkute bu mu am la ba yëg ko ci ni mu taxawee biir assemblée nationale ñu ràññee woon ko nag ci ñi nga xam ni daan nañ gën a fësal seen kàddu di dal ci Ousmane Sonko bu ñu jëlee ku mel ni ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour moom it amul lu mu yàqul Ousmane Sonko ak ñoñom dem na fi sax ba doon wax naan Ousmane Sonko bu xiifalee boppam ba dee ci kaso bi rek ñu doon ay jabaram xam nga ni loolu wax gënu ko ñaaw gis nañ ni ku ci mel ni Thérèse Faye Diouf moom it jox nañ ko fi nombo dénk ko ab kuréel ba mu yàgg ci formation gouvernement bii ñu mujj ñu def ko ab ministre gis nañ ñu itam Abdou Karim Fofana mi nga xam ni moom moo nekk ministre porte-parole du gouvernement ñooñu ñëpp benn mandarga la am dañoo doon ay ndaw man maanaam tolloog jamono wala ay at Ousmane Sonko pare nag pour defante ak Ousmane Sonko donc président de la République en réalité ñooñu ak profil bu mel noonu moom la pro waral noonu te dara waralu ko lu dul taxaw bu ñooñu taxaw sikk mu Ousmane Sonko ba fu mu yëkkati kàddu ñu dal ci kawam di ko ŋàññ di defante ak moom lii nag daf may fàttali rek lu ma. Abdourahmane Ndiaye ndem si yalla si nekkon ku jege lol président Macky Sall nettali won ci euh, bi nga xamé ni président Macky Sall gagné na élection présidentielle 2019, mu doon ko xamné amon na taxaway bu am solo ci biir APR nekk ñalé président Macky Sall ñu dénkoon ko cër gu am solo itam ci parti bi ni muy doxé ak ni ñuy nafé ay stratégie pour jëm ci politique. mu ni ma Mamar li nga xam ni moo tax moom Abdourahmane Ndiaye mooy wax de mi ngi ci dëgg maa ci fan li nga xam ni moo tax Macky Sall gagné élection yi dès le premier tour mu jaaxal kujje gi mooy ñoom kujje gi ñoom ba ñu wëree Sénégal defuñu dara lu dul wax ci biir ci Macky Sall boobu jamono moom Macky Sall mi ngi wax ak sénégalais yi maanaam l'opposition d'alors parlait de Macky alors que Macky Sall parlait aux Sénégalais ma lii moo waral ñu gañe leen gañee goo xam ni xamuñu fu ñu koy laye parce que jamono ju ñuy wër ñoom di wax ci mbiru Macky Sall ña ngi koy defal promotion Macky Sall ëlbatiku di wax ak sénégalais yi la muy wax yegg seen biir yegg seen xol ñaar yooyu la Macky Sall boole ba gañe leen gañaay gu rëy gi leen gañee en 2019 dafa mel ni nag loolu moo dal nguuru Macky Sall ci mbirum Ousmane Sonko ñoom ba ñuy wër di wax ak di ŋàññ Ousmane Sonko fekk ni Ousmane Sonko moom ma nga wax ak sénégalais yi di wax ak sénégalais yi di leen wax li mu nar li nas souverainisme boobu muy woote nga xam ni moomaat sa bopp jël koom-koom bi réew mi di ko plutôt que ñu koy bàyyi bi loolu moo dem ba sax ci xolu sénégalais ba nga xam ne Ousmane Sonko ci boppam sax na ci xolu sénégalais yi sax moo xam ni déjjati ko fa dina jafe lol loolu mo waral kenn gisatul bilan président Macky Sall surtout nag bi ñu fitna jëme ko ci moom dafa am benn boroom xam-xam Karl Marx bu doon wax naan une idée quand elle s'empare des masses elle devient une force manam xalaat ak mébét ki koy yëkkati bu fexee ba dugal ko bëri jël ko mu day doon ten yëfu bopp xalaat boobu day mujj doon doole day mujj am doole mel na ni nag loolu ak fitna yi ñu teg Ousmane Sonko ak i ñoñam moo mujj mëdd bilan président Macky kon boog président Macky bu fekkee dafa yëkkati woon laaj jëme ko ci ay ñoñam di leen wax lu tax li mu fi def ci bilan mënuñu ko siiwal ba nit ñi gis ko lii nag moo ko waral président dafa fekk rek ni sa ministre yi bàyyi woo leen woon ñu wax ci sa bilan la nga leen doon natte ak di leen di joxe cër ak i nombo ak di leen yokk ci seeni taxawaay nekkul dara dudul ku ci gën a fës ci jaamaarloog ak ci xas Ousmane Sonko rek nga yëkkati ko moo tax depuis deux mille vingt déggoo fi waxu bilan déggoo fi itam waxu siiwal liggéey boo xam ni def nga ko te am na ci pàcc yoo xam ni ku waxal yàlla xam ni am na solo mu des nag mbokk yi ñu xool lu tax président Macky mer lool ba jaaxal ñu bari mer lool itam ba fësal ko dama jàpp bi ci njëkk mooy

président Macky Sall mel na ni mu ngi sentir parce que nit dong la nag këpp doole gi mu yore woon ak pouvoir bi mu yore woon mi ngi koy bàyyi ndànk ndànk ndànk te dafa feeñ ci li nga xam ni ñenn ci ay ñoñam noonu la ñu doxalee ba bi mu tàmmee Amadou Ba ñoom ñu taxaw fippu ni ànduñu ci tànn boobu président nag dafa mel ni santiment boobu mi ngi koy commencer sentir moom ni que pouvoir bi mi ngi rëcc ci ay loxoom bañ na ko ba tax ba dafa feeñ ci ay waxam parce que wax na ba ni j'ai renoncé au pouvoir mais dinaa fi taxaw ba ba may joxe lenge yi lu ma war ma def ko loolu nag li muy wane rek mooy mel na ni sentir na ni fi ñu toll tembe que ni baatam gëdd ga mu amoon ak war ma ba ñu ko joxoon ak kilifteef gi mu amoon ci ay ñoñam am na lu ci commencé ko kooku mooy première raison deuxième raison bi tax président de la république mer ba jaaxal ñu bëri mooy dafa am kàddu yu mu fi yëkkati woon conseil des ministres bu amoon fële ca Kaffrine mars 2015. mille quinze mu ne woon te wax jooju ba tey mi ngi riir ci nopp sénégalais yu bëri ndax rëy gu mu ni woon dina réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam feek mi ngi toog ci réew mi du fi tekki dara maanaam dana leen song defanteeg ñoom ba wàññi leen ba nga xam ni seen taxawaay daanaka kenn du ko nemmeeku ci biir askan wi waaye mel na ni bi mu demee bay bëgg bàyyi léegi xam na ni loolu nga xam ni moo doon mëbëtam mujjuta antu te firnde li yomb naa jàpp gis nañ li fi xew ci élection locale deux mille vingt-deux nga xam ni opposition boo xam ni danga nga jógte woon pour fexe ba naxasal ko ay dëkk yu am solo mu teg ci loxoom loolu wane na ni que yéene ba nga amoon ak mébét ba nga amoon antuwul waaye li ko gën a firndeel te pour la première fois bi ngi soog a am ci histoire u Sénégal maanaam histoire politique mooy la xew ci législative ya ci topp nga xam ni muy Senghor muy Abdou Diouf muy Ablaye Wade kenn mësatu dund li mel ndax ku nekk ci ñett ñooñu nga xam ne ñoo ko jiite woon ci réew mi jamono yi nga nekkee président la république am nga majorité bu am solo nga xam ne assemblée sa parti ak say ñoñ ñoo fay ëpp ba téye assemblée waaye gis nañ lu tukkee ci législative yi nga xam ne dañoo dem ba daanaka dañoo témboo ñoom pouvoir bi ak kujje gi kooku nag. li muy wane rek encore une fois mooy président la ma ni woon dina réduire l'opposition à sa plus simple expression mujj ta antu te rendre na ci compte surtout nag ci jamono ji nga xam ni dem na bay bàyyi pouvoir bi donc kooku mooy ñaareel raison bi ñetteel raison bi te mi ngi tukkee ci ñaareel bi mooy Ousmane Sonko mi ko tëwit Ousmane Sonko ku waxal yàlla xam ni tën witt président de la République Macky Sall pexe mu ne def nañ ko ci moom waaye ni mu ko lëjëlee bi mu nekkee ci biti moom boppam bi dama ko ñëw mel na ni noonu la ko lëjëlee itam jamono ji nga xam ne teg nañ ko loxo ba dugal ko ci kaso bi Ousmane Sonko ci biti kaso dafay def actualité bu nekkee ci biir kaso itam def actualité ba sax te dinañ ci ñëw ci kanam léegi nekk na kaso am ko mu joxoñ ni nañu utal kooku parrainage boobaak léegi. réew mi mel ni mal li mel ni bi gisoo ko door alors que door na boobaak léegi am na ñaari weer ak itam xam ni du luy neex président de la république Macky Sall ba tax na xëy na am na lu mu waral ci mer gi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci moom waaye am na beneen raison te fa la ñuy daanele mooy comme ni ko ci wax ñeenti région yoo xam ni ca la def conseil des ministres délocalisé muy Kédougou Kaffrine Kaolack ak Fatick te ginnaaw Fuuta nga nga xam ni sax Farba Ngom su ne mu fàttali ni que patrimoine foncier la bu président Macky Sall ginnaaw Fuuta fi APR ak Benno Bokk Yaakaar gënoon a samp ci biir réew mi mooy Sine Saalum maanaam Kaffrine Kaolack ak Fatick maadu ni président de la république Macky Sall bi mu demee ci conseil des ministres bii dafa gisal boppam ni que doole ja nga xam ni Benno Bokk Yaakaar ak APR amoon nañ ko ca région du Sine Saalum boobu nga xam ni ba mu fi toogee ba léegi ñoo ko mës a téye maadu doole googu daf commencé wàññeeku. mer gi mu mer nag ci bi mu demee bay tëj conseil des ministres délocalisé ca Fatick mel na ni loolu lay wund te loolu nag dafay dool loolu waar parce que dem na sax ba ni bu fekkee da ngay def dara te waxuloo ko dafay mel ni defuloo dara mbaadu président dafa dem gisal ci boppam na ko ni ko Sine Saalum joxe seen bopp am na lu ci wàññeeku ba moom mu yëg ko parce que nag. mën nga koo sikke lu ne waaye ku am flair politique la ku xam xam-xamu politique la lu mat semaine maanaam ay bés bu ko président de la république defee suñ Saalum diggante Fatick Kaffrine ak kawla natt mbooloo mi xool niñ ko teeroo ak niñ ko tatagalee ak nañ ko daan tatagalee xëy na moom am na lu mu nemmeeku ci wàññeeku bu Benno Bokk Yaakaar wàññeeku foofu loolu itam mën naa waral mer gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci président la République Macky lii mooy mbokk yi li ñu waroon a jànge ci ŋàññi bi président Macky Sall ŋàññi ay ñoñam ni du ñu fësal bilan wax nañ leen di tax ak li nga xam ni moo waral itam mu mer ba jaaxal ñépp ñu ñëw nag ci beneen xeexoo boo xam ni fës na lool ci ay bés bi ñu génn muy tànn bi nga xam ni. Ousmane Sonko tann nako ko Bassirou Diomaye Faye nga xamni mom moy secrétaire général Pastef taftalu ci mom mi nga xamni moy président bi mu tann ko pour ñu jaglel ko parrainage u yi muy lo xamni nak suñu émission bi ñu genn waxon nañ li ni mel ne li nga xamni mo war wa Pastef bi nga xamee ni sóobu nañu ci xeexub judiciaire maanaam justice wàllu justice dem ci ba nga xam ni dafa mel ni dina jafe lool Ousmane Sonko am ci ndam jot na nag pour ñu sàkk pexe pour xool naka la ñuy amee plan B wala bu dul plan B itam mu doon ab pexe boo xam ni dinañu mobiliser waat patriotes yi dal di doggali parti bi. ranimer ko ba nga xam ni seen taxawaay dina fës waaye waruñoo compter nag ci mooy ci ñu Ousmane Sonko mooy suñu plan A amuñu beneen plan loolu la waxoon samedi ñu xëy dimanche Ousmane Sonko joxe ndaje wax ak sénégalais yi ba def tànneefu Bassirou Diomaye fay bi am na sax ñoo xam ne jiiñ nañu gisaane ne xëy na dañ ko gisaane am na sax ñu ni boo moytul sax ñoo ko xelal waa Pastef waaye wax dëgg yàlla suñu xam-xam tolluwul foofu dafa fekk rek ñu wax mu tombe te nag loolu doonoon li gën a jaadu ci wàllu politique ba nga xam ne ci mujjantal gi donc Ousmane Sonko tànn na basiiru jamaay Faye waaye li ñu gëm fi toll nii tembe ñun mooy Bassirou jamaay fay boobu sax bu ko Ousmane Sonko tànne ngir rek làbbali parti bi la waat indiwaat yaakaar ci patriotes yi parti bi dundaat yëngu wane ni ñu ngi fi waaye ñun jàpp nañu sax moom mooy bu di doon candidat Pastef ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax ñaari mbir bi ci njëkk mooy yaakaar nañ ne nag Ousmane Sonko cuunewul cuune ci wàll politique ba ñu jël koo xam ni li ko dal moom Ousmane Sonko mi jëflanteeg yoon moo ko dal. maanaam yoon mën na koo tënk ba candidature am du antu mu koy samp di ko def candidat kooku mooy première raison parce que lu ne nag mën na gàllankoor candidat Bassirou jamaay fay ci wàll yoon comme ni mu ko gàllankooree moom Ousmane Sonko donc loolu mooy première raison bi te yaakaar na Ousmane Sonko cuunewul cuune boobu ñaareel bi mooy ñun dañu am yaqin ni Ousmane Sonko ki muy tànn mu doon candidat wu Pastef du parrainage citoyen lay yóbbu jëpp li ko waral mooy téye la ci wàllu parrainage citoyen yomb na lool parce que boobu kàdd gi kenn rek ku koy am muy conseil constitutionnel ñoom ñooy saytu signature yi tey bu ñu ko saytoo motif bu ne. ba li ñuy tëdd sax divers motifs maanaam loo xam ni dañ koy wax rek mu laal te yow sax mënoo cee teg loxo mën nañ ko def ba neenal sa candidat kon nag ñun jàpp nañ ni Ousmane Sonko du parrainage citoyen lay tànne candidat bi nga xam ni moo war a dem taxawal Pastef li ñu gëm bëggam kay mooy moom la mbër mi Ousmane Sonko di tànn di yóbbu bu dee déposé candidature am parce que moo gën a yomb moo gën a wóor fukki député ñett ci ko am ñaar fukki député ñeent tëwu leen ci ab signature boo xam ne amul benn risque de doublon defe naa noonu la Ousmane Sonko di ngembee candidature bi nga xam ni moom lay tànn waaye lu ci mënti am waxoon nañ lañ ko fi te nañ lañ ko waxaat kii di Macky Sall ak kii di Ousmane Sonko. ñoom ñooy doon les absents les plus présents ci élection présidentielle yi ñu dem Macky Sall leer na ba nopi du ci bokk wax na na tànn na candidat Ousmane Sonko su nañ ni ak ni nga xamni dañ ko teunk ci walu yoon du doon candidat waaye même ñom bu ñu doonul candidat ci seen jëmb bopp seeni takkandeer fook ñu dajé ci élection présidentielle bi loolu moom mënta ñàkk président tànn na candidatam muy euh, Amadou Ba Pastef dinañ tànn candidat waaye même bu ñu demee ba nga xam ni amul candidat bu soqeeku ci Pastef maa mu jege Pastef maa don doon allié Ousmane Sonko jàpp nañ sax ni bépp candidat bu jóge ci kujje gi xaw a gis-gis ak Ousmane Sonko bu boobaa Ousmane Sonko dina la tege loxo mu tege loxo Bassirou Diomaye Faye ba nga am taxawaay bu mat sëkk ak taxawaay boo xam ni mën na laa njural tax gañaay ci élection yi jëm moo tax ñu jàpp ni ci nii maa ci nele bi nga xam ne président Macky Sall jaamaar ko ak Ousmane Sonko dina law law ba ci élection présidentielle bi même bu jul seen ñaari jëmm. loolu daanaka leer na ba noppi seeni takkandeer dinañ jàmmaarloo président de la République dina taxaw féete am candidat bu mu jàppale commencé ko campagnal te mi ngi koy mi ngi ci tax bu baax Ousmane Sonko itam même bu fekkee amul candidat Pastef wala amul candidat ci ñi jege Pastef képp koo xam ne jàpp na ni ci ku jegi nga jóge te mën fee jëlee nguuru président Macky Sall dina la teg loxo jàppale la moo tax Ousmane Sonko moom loo ci mënti dégg il sera le faiseur de loi ci élection présidentielle yi ñu dëgmal li ko waral nag lu simple la sooru Ousmane Sonko ak sooru Pastef mu ngi dépendre ci liy tukki ci élection présidentielle yi élection présidentielle yii bu ko mag Macky sàll ak ñoñam gagné li wóor ba wóor mooy ëllëgu Ousmane Sonko ak ëllëgu Pastef ci ak politique moom lëndam na. bu ñu maytul sax ñu wax ni gàncal nañ ko daanaka waaye ñoom bu ñu fexee ba am taxawaay ba fëf ci élection présidentielle yi ba kiy gañe mujj gañe ndax seen taxawaay dina am njeexital ci taxawaayu Ousmane Sonko ak ci ëllëgam ci wàllu politique lii mooy enjeu yi nga xam ni moo nekk ci élection présidentielle yi ñu jëm ñu xaar nag ñu ñëpp fu wànnante di mu jëg bëtam parce que nous avons na ci jamono ji tembe ak 260 et quelques candidats nous avons une lecture fiable il faut que nous nous ba xool liy tukkee ci parrainage yi ak ci mujjantal gi fii le 10 janvier ñan la conseil constitutionnel taxaw nan ñoy mbeuri bu ko defee mu gëna a leer ñu mën n'at ku nekk ci mbeuri yi am jangat guñ ci def nous avons def man pronostic waaye fi ñu toll ni tembe moom teel na pour ñu def loolu mbokk yi lii lañ doon indi loon tey ci seen émission le regard de Momar Diong di leen sant di leen gërëm ci topp bi ak bàyyi xel bi ak sax yenn xel yi nga xam ni moom ngeen di xeltu di ñu ko yónnee ñu ci sukkandiku di ci am ndëgër ndëgërlaay ngir di leen di présenter émission bi ci anam yu ëpp ci ayib di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal euh, weekend bu baax weekend bu neex ba àjjuma ba li ñuy ñëw wala samedi bi wasalaam jërë